di nuyu Omar Diop ak waa këram yi nga xam ne ñoo fi nekkoon depuis sànq ba léegi yu nuyu chef de quartier ak waa koñ bi yëpp di kontaan si seen taxawaay di kontaan si li tax ngeen ñëw fii ñëpp di leen sant ñu ma àndal ñëpp ci mbégte la ñu nekk ndax mënoon naa gën a gàttal yi te teewul nga bàyyi ñun ñi dem comme ni mu war a demee mais loolu yëpp nag dama koy gërëmee Yacine ndax nit ku xëy suba ñëw fekk la sa kër. ne la dama laa sopp dama bëgg a jàpp si liggéey bi xëy amul fukki fan ak juróom mu def événement bu mel nii war nañ ko sant kon balaa ñëw daal la ñuy sant Yacine ba pare ndax lii bu dul woon Yacine xëy na du dugg si koñ bi tey ba def bi def li ni mel kon nag il ñu sant ko di sant aussi seen waa yi nga xam ne ak papaam ak yaay mi xam ne ñoo ko doon fidèle ba mu ñemee ba ñeme ñëw si man ñeme toll ak man dégg naa ne nag yóbbante incha allah li ngeen ko bëggee rek laa koy def damay wax rek ne fii rek doy na preuve xam ngeen fii bu leeree mooy lampe yi nga xam ne moom mooy moom la ñuy filmer moo tax fii leer fii du tali ba loolu xoolee ba bopp koñ ba def dafa lëndëm fii mi ngi mel comme koñu sondeel la koñu sondeel xam ngeen koñu sondeel moom la ñu gis tey yoon boo xam ne koñ boo xam ne boo fi duggee benn làmp boo ko séenee balaa ngay séenal benn làmp moo ñaari kilomètre loolu ay nit yuy dëkk war nañ ko xam ni loolu du defar dëkk kon nag ngeen xam ni loolu déjà mooy première gaaf bi nga xam ne nii bi mu duggee ci koñ bi moom laa njëkk a remarqué dégg naa ngeen wax ay lu ma def ak yooyu dama ne commencé guñu commencé guñu xam ngeen lu tax commencé guñu parce que li ñu soxla te nekkagul suñu loxo li ñu def suñu doole bopp lañ koy defee ak suñuy pexe li ñu def nag li nga xam ne yéen ko moom mooy li nga xam ne mooy maire bi yéen ko moom man moomu heure bii may wax ak yéen dama leen ne jox leen ma seen alal ma téye leen ñu xool ndax bu ñu àndee liggéey dana baax wala du baax ci loolu lañuy ñuy wax. kon loolu aussi damay dox benn tànk ngeen heure bii nag yéen a war a dox benn tànk xam ne la mooy dox benn tànk bi. fexe ba dugg ci kër yi kenn ku ci nekk ba nga xam ne yeewuwul woon wala koo xamee ni ñi ngi koy wax loo xam ne méngoowul ak li nga xam mooy njëriñu dëkk bi nga wax ak moom mu xam ne njëriñu dëkk bi kat mooy ànd ak gaa yi ànd ak yéen ñu àndandoo defar dëkk bi loolu moom mooy loolu mooy njëriñ kon nag ngeen xam ne ci heure boobu lañu ñu taxaw ci boobu position la ñu taxaw position bi ñu taxaw nag mooy dañoo bëgg a defar Tiwaawan li may wax toujour laay wax bu ci nit ñi àndee dinaa ko defar bu nit ñi àndul dinaa ko defar. parce que loolu laa gëm dama gëm ni defar bi day laaj volonté volonté bi mooy lu mel ni Yacine def tey xam ne que war na see jàpp mu xëy suba takk ndigam ñëw ne damay ànd ak yow liggéey suñu koñ kat amul représentant kenn mosu fi ñëw benn policier mosu fi taxaw kon ñun dañuy fexe ba yow nga ñëw taxaw bi ndax boo léegi dañoo bëgg suñu koñ baax nag ba ñëw noon la ngeen war defaat ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw tey ngeen àndaat ak moom dugg si kër yi wër ak nit yi waxtaan ak kenn ku ne xam ne li ñu def fii pour pour lu jëriñ dëkk bi rek moo tax nit ñi def ndax fii amul lenn lu ñu fi def loo xam ne pour suñu bopp la li ñu def yëpp pour nit ñi nekk à l'aise ndax boo nekkee si dëkk ñaara fi nekk defal dëkk bi ak defal nekk ci biir dëkk bi te defal nit ñi si dëkk bi mooy leen ñu fi nekk mu am liggéey am place xale yi tamit mën nañu fexe ba ñu liggéey loolu pour ñu def ko day day laaj benn taxawaay day laaj benn organisation comme nag Yacine ñu ngi doog a tàmbali dañ la encadré ànd ak yow war na naka la ñuy def ba bu ëllëgee koñ bi nekk ci koñ bi kenn du la fi jéppi kenn ku nekk dana ne kat li ñu ànd moo tax ñu am place wala li ñu ànd ak Yacine moo ñu am ay financement wala li ñu ànd ak Yacine moo tax ñu ñu ànd ak Yacine moo tax ñu am lamp wala li am Yacine moo tax suñu koñ dafa taa wala ainsi de loolu yëpp dinañ ko def ngir yow ngir sa engagement moo tax ñu di def parce loolu nag. te nag lu ci munti am dañu xam ne que volonté boo ko joxe volonté bi nga ñëwoon nag moom lañ delloo waa dañu ko delloo ci fànn yi ñu ko war a delloo yëpp en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm waa fan bi yëpp tey dafa manifestation bi dafa bari ay ay yu fi feeñ damay wax ni xale yi nekk Tivaouane di way wala def culture yii ngeen di fexe ba loolu mu siiw ndax ay xale yu am talent lañu ñuy tëgg xale yi ñoo tax a tëgg mag yi xale yi ma gis ñuy tëgg ñoo dàq tëgg mag yi ndax ñoo leen ëpp feem kenn ku nekk sa jamono ñun ñooy fexe ba xale yi ëllëg ñu mën a tekki leneen ñu leen di dégg feneen fu fii rek mais mënuñu yem dëkk biir Tivaouane rek resté biir Tivaouane loolu aussi war nañ ci liggéey mooy culturellement war nañ fexe ba li nga xam ne mooy mooy germe ci biir xale yi nekk biir Tivaouane ñu fexe mu génn ba kenn ku nekk xam ko comme Sénégal yëpp xam ko loolu dafa bokk ci li nga xam ne loolu la ñu war a def en tout cas ñu ngi leen di gërëm di leen sant di remercier Mbaye Diallo li may wax toujours kenn ku ci nekk boo bu fekkee nekk da nga bëgg liggéey am na foo xam ne boo fa jaaree nga xam ne yaa ngi si yoon bi jàpp mi ngi si yoon bi te dinañ ko encadré dañ ko war a encadré toppatoo ko ni ñu ko war a toppatoo ba bu ëllëgee yow doo rus ñun du rus en tout cas loolu daal moom mën naa la ko garanti fii ci kanamu ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamaaleykum jërëjëf